Yaakaar parce que benn Benno Bokk Yaakaar gisee gu ñu waxtaan gu ñu saytu càmbat ba téye waaye nag man ci APR laa bokk nekk fa responsable nekk président chambre élu maanaam képp ku fa takk ndomba tànk ci élu maa la jiite. d'ailleurs j'en pour woo leen ñoom ñëpp pour que ñu gaaw daje bokk waxtaan pour seet suñu candidat ñu koy mën a jàppale ci gox yeeg gox goxaan parce que nag élu moom moo nekk fépp loolu ma ne ñun. jël nañu candidat am nañu candidat xam nañu kuy suñu candidat président Macky Sall xam nga lu tax ñu ma ne la président Macky 2024 12 mois 13 mois ci dess gën ga bari duñ fi nek nan dañuy jéxé ka waru feneen ki nga xamna ni xamna man na te def nañu gis mom lañuy jël tek ko mu neex ko mu nakari ko moy nekkat suñu candidat ci euh, ndaje tey la yëkkati ci kàddu ci wàllu dépassement ak euh, dal ci réew mi dafa mel ni non euh, li ma li ma wax dama koy wax ci wolof